Cheikh bi te commune bu wàkk Ngouna gi laa dëkk village bu ñuy wax Kootenete di yëngu di yëngu ci maraîchage bu ma ne maraîchage dafa horticulture boog maraîchage ci la bokk mais tamit damay defaale grandiculture damay produit dugub mboq gerte ak xaal xaal dañ koy béy fii bari na xeetu mbéyte fi ñuy béyee bon manque moyen lool nag néew doole ci li ma nekk nii lool boot tamit groupement bu mag a mag a mag bu nekk suma ginnaaw ay góor nekk ci ay jigéen nekk ci ci 92 personnes yoo xam ne nii man maa leen jiite euh, groupement bi mu ngi tudd gàncax ci sama gox dañuy fexe ba def gàncax ci gox gi gox bi fi ñu nekk nii ñun suñ gox bu ñu avancé woon nuy tuuti fii nee naa la centrale pépinière la mais bu ñu avancer fi ñuy bu pépinière bi réussir fi ñu koy yóbbu tool yooyu mu ngi fii ci kanam. bay nañ fa soble kaane salade tomate foofu ay plus de 17 hectares yoo xam ne. groupement bi ma lay wax ñoo ko emblavé 92 euh, personnes yooyu 17 hectares ren ñu ngi xaar ci oignon lu mu néew néew 103 tonnes bu ñu produire oignon ba pare ñu ngi xaar loolu. tey jii comme ñun dañoo nekk ay jeunes yoo xam ne dañuy yëngu ci développement développement durable comme tey euh, ni ma la ko waxee ñuy yëngu ci wàllu mbay horticulture en même temps di defaale grande culture alors bëri na comme ni ma tamit ñuy def production. agro agroécologie agroécologie mooy mbay mu amul tooke mbay mu amul tooke mooy nga xam ne ni ñun du ñu def engrais chimique duñ def produit chimique tamit ci euh, phytosanitaire yi alors te ñu bari ay jafe-jafe yoo xam ne ni ñu ngi koy jànkuwanteeg ci boo fexe boo fexee ba réussir agroécologie mooy commercialisation en même temps manque de moyen pour nga mën a def agroécologie manque de moyen mooy pour nga mën a def sa compost moyen la laaj ci unité de transformation yi manque de moyen pour nga mën a def sa phytosanitaire maanaam mun a def euh, produit yi nga xam ne moom la ñuy traité euh, gàncax gi su amee ay xeetu maladie yooyu tamit ak soxla dañuy renforcement des capacités pour agro agroécologie pour nga mën koo réussir il faut nga am xam-xam bi d'abord xam-xam boobu tamit ci ay taxawaayu formation yoo xam ne nii ay centre de formation yu ñu mën a defee agroécologie euh, beneen bi mooy su su su ndaw yi anka anka engagé woo pour soobu ci mbay mi jafe-jafe yi bari na trop bon li ci mel ni suuf am nañ jafe-jafe suuf jafe-jafe suuf premièrement soo amee sa suuf pour nga mën a ànd ak partenaires yi wala ONG yi ñëw am nañ jafe-jafe délibération nag plus précisément sunu commune bon loolu tamit ñu ngi koy jooy suñu autorités yi ku ñu mën a dégg nga xam ne bu ñu jàppalee woon ndaw ñi ci délibération pour ñu par terrain yi ñu am ñu mën a am délibération yi dina ci baax ñaareel ba mooy comme ni ma la ko waxee manque de moyen yi financement bëgg nañ ko ku ñu mën a accompagner ci nit bala ngaa def dara il faut nga xam ko ci formation yi il faut ñu dimbale ñu ci formation yi ñu mën a xam bu ñu buggee def horticulture mbayu maraîchage xeetu xam-xam yi mu làmboo ñu mën a am fexe ba mën koo gànnaayoo pour mën a sóobu ci maraîchage xam-xam bi ci jiitu mooy bala ngaa mën a def maraîchage il faut nga mën il faut nga réussir pépinière nan la ñuy mën a def ba réussir pépinière pour nga réussir pépinière il faut nga am semence de qualité pour nga am semence de qualité il faut nga am xam-xam bi ba mën a distinguer semence bi mooy qualité wala nekkul qualité loolu formation moo ñu ko mën a may boo réussir forma boo réussir bu ñu réussir semence de qualité mooy jiw yi jiw yu baax yi nga xam ne ni moom mun nañoo ànd ak moom ci mën a réussir pépinière nga am xam-xam bi d'abord nan la ñuy def ba mën a pépinière soo réussir pépinière mun nañoo wax ne réussir nga production pour nga mën a répliquer wala nga mën a semer direct il faut nga am jiw bu baax wala nga am pépinière bu baax boo réussir loolu ba pare tamit ñu am xam-xam bi nga xam ne moom la ñuy àndee moom ci biir tool bi xam-xam de euh, ni may installé samay plantation en même temps nga xamaale nga mën ñu mën a xam calendrier cultural nga mën a xam tamit spéculation yi nga xam ne nii moom moom la ñuy mën a bay ci heure bi moo moo adopté ak sunu zone bi wala weer bu nekk wala saison bu nekk. Euh, baykat bi war naa mën a fexe ba xam yan variété xeetu mbayteef ñoo méngoo ak jamono boobu lii mbayum noor la wala mbayum nawet la su nawet jotee xeetu mbayteef yii laa mën a samp bu noor jotee xeetu mbayteef yii laa mën a samp bu tàngoor wi ñëwee lii moo adapté ak suñ zone bi bu sedd bi ñëwee lii moo adapté ak suñ zone bi xam-xam yi renforcement des capacité yooyu ci euh, formation yi bëgg nañ buñ ko amee ku ñu ko dollil ñaareel ba mooy comme ni ma la ko waxee même conventionnel bi ñuy def conventionnel mooy ñi nga xam ne dañuy def mbay mi nga xam ne day ànd ak engrais euh, mbayum mbay euh, euh, kii dafa am pratique paysan pratique agro écologie ak conventionnel conventionnel bi tamit ay moyen la laaj mooy engrais bi cher na fi ñu toll nii bon phytosanitaire yi ma lay wax produit yi ñuy traité gàncax gi cher na en même temps xam-xam bi nga xam ne ci la ñu war a mën a utiliser produit yi tamit dafa des ci suñu zone bii bu ñu amee ñu ñu dimbale mooy comme ni ma la ko waxee ci formation yi ñu jàppale ci ñaareel ba mooy dimbale ci suuf bi suuf si suñ ko amee dimbale ñu ci délibération yi ba ñu mën a ànd ak projet yi nga xam ne ñoo fi ñëw di ñu laaj ay délibération ñu ñuy jàppale tamit ci subvention yi parce que manque formation bi dafa ëpp comme ñun fii ñu bari zone bi ñu bari xamuñu. yan yoon la ñu mën a jaar ba jot ci subvention yi nga xam ne état mu ngi koy def wala ONG yi wala bailleurs yi nga xam ne ñu ngi fiy ñëw tamit vraiment manque de formation kii information yi dafay des duñ ci mën a jot bu baax wala buñ ci jotee duñu xam lan la ñuy wax institution financière yi tamit pour mën a ànd ak ñoom mbay dafa am ay risques yu ci nekk risques yooyu tamit boo ñi nga xam ne nii tey béykat ki nga ki engagé wu bur bay ànd ak banque yi banque su la lebalee bon war nañoo mën a xam tamit jafe-jafe yi nga xam ne bu ñu dalee béykat bi war naa mën a xam ban yoon la mën a jaar ba ba ba coono bi koy fekk ci banque bi mu mën koo wàññi mu mën koo tegeeku ni ki agri assurance agricole assurance agricole boobu la ko banque tegee jafe-jafe bu ñëwee tamit wax dëgg yàlla xëy na ñàkk xamu baykat bi tey producteur bi ne ci toolam di bay demoon jëli euh, prêt ci banque bi su ko jafe-jafe dikkalee du xam ban yoon la mën a jaar ba banque teggil ko jafe-jafe yi wala woyofal ko ko déedéet banque day jël day boole jafe-jafe yi mu am ci toolam ak jafe-jafe banque am yëpp yenu ko su boobaa produ producteur boobu buggoon na développement buggoon na suqaliku mais mujju na suux ci ay jafe-jafe yu métti di amaat mbégte contentement bu baax du ma ko bàyyi di ko wax Alnour TV bi ñu seet si en même temps di gërëm grenier di Saloum bu baax a baax bi ñu ànd ak ci liggéey bi waaw grenier di Saloum ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, ki demee ci coordinateur bi Moustapha Mbow di juuf bu ñu limee du ñu matal ak waa grenier di Saloum yëpp wa panel bi yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen di gërëm ñoom it parce que ñoom bàyyi wuñ ñu benn yoon ci formation yi mala lay tawat nii ñoo ñuy accompagner ci formation yi ñoo ñuy accompagner ci semence ñoo ñuy accompagner ci yenn moyens yi tamit vraiment